macha allah fa tabarakallah marhaban ya rasulullah alhamdulillah fa tabarakallah macha allah marhaban marhaban marhaban alhamdulillah lekk ak naan rek ngeen fi nekke loolu defal ñu ne ko naañ du ngeen woor du ngeen def leen koor gi ñëpp a waroon di woor yuuxu yow da nga civilisé dara. Ah, waaw waaw waaw waaw ma ne moom kay boo bëggee ganaar moom ganaar a ngi fi moom ganaar yaa ngi nii macha allah may ndil la ci. wuyu ma bu fi indi ganaar bu fi indi xar bu fi indi bëy man xiifuma maruma dégg maa ngi di toog loolu nga wax ndugg naa ko ba pare waaw sama jox ma jox xaalis xaalis laa ah, yor. xaalis nga bëgg. waaw yow kay ah yow loolu jarul wax yow kay xam naa ne xiifoo xiifoo maroo xaalis daal nga soxla amul problème amul problème maa ngi fay jaar dégg nga. ma may xaar maa ngi si waat bu ko envoyé de ñëw nga indi parce que sinon dañ ciy dagg frais yi ñëw nga indi ma ko jox ma ko sama loxo. I love you I love you too too <laughs> yaa ma ko jàngal kat yaa ma ko jàngal too. <laughs> macha allah fa tabarakallah marhaban ya rasulullah Muhammadul Mustafa si mooy docteur jeunesse bi Muhammadul Mustafa si mooy docteur mooy docteuru collège de pairie mooy docteuru collège de mairie mooy docteuru xale yi si danga mën a woy nag yow koor jàpp la koor jàppee léegi. da la koor jàppoon moo boo sonnoon na man doo defee nii. yow da nga daal koor da ngeen ko lan ngeen ko jàppee yéen koor yéen. déedéet léeg-léeg nga sonn rek sa yaram sonn. ma sonn yàlla daf maa yàlla beral loxo si laa bokk. kon baax na ana kinne. yow Ousmane foofu ñu wax moom daa ngi gis naa ne yow rek lay woo. gis naa ne yamatoo ci saa bi léegi da ngay dem fonce du ba si biir nekk bi. Hmm. man nag xaw ma lan nga seq ak kinne mais yow loolu war naa koo xam yamal sa tànk yamalu ko fii ci couloir bi wala nga yamalu ko ci sa waaw yow daanoo daanoo nga yamalu ko ci saa xamoo nit kuy wax lu mu xamul. lu ko dal rek noonu la. lan wax lu ma xamul ana civisme. ana civisme ana sa civisme fu mu nekk. ma ne nga yem yow yaa ma ne ànd nag civisme laa wax. yow yaa civisme wul yow. waaw ba pare nag yow amoo benn saawaar yu bëri. lan lu sa ana maandu. yow yaa maandu. dama laa laaj ana kin ne bu ñu waroon réglé man ak yow balaa ngaa dugg. fan yii yëpp maa ngi la ko buuxal foo ma wàccu la ko. parce que li ngay dugg ci biir salle bi bëri na. léegi man maa am ak yow compte ci loolu. waaw oh, yow yow yaay kan. man maay Mbagnioukhou Badiane avec grand nœud. foo toj. waaw kii lan moo ko dal yow. yow foo toj. man waaw yow. fu ma toj ngeen jëlee foo toj fan laay toj. tojoo caali maa ko toj rajax ak jaxaw yaa tuuti fa nga toj. waaw yaa tuuti fi laa lay laaj mi nga dugg bu gis nga moom nga wax ak moom boo paree nga génnaat léegi. waaw réew loolu dama ne boo paree Modou kaay kaay kaay. waaw loolu la. yow yow kan moo tax yow temps yii da war a sol peew bu paree jiin nga sol ni pour nga la. bon yow lu sa yoon. mais eh, xoolal make-up dafa may make-up dafa xew de man damay make-up sa yoon nekk. yow yaa ngi may def pharmacie kii moom. mu ngi danga danga danga danga ba pare ma daal fii ku ñëw rek sol jiin ma daal ku jógee dëkk ba ñëw rek ñaari fan laa la may nga sànni sa caaya sol jiin jiin bu wow ba pare jiin bu wow bu doon jiin bu léger la ñuy sol ñu mën a jiin bu wow boo xamante seen sang bi dara du ci circulé man du waxaat leen bi lay waxaat. waaw <laughs> soo ko wani yaa ngoog. ñu ne la. ci lan. da ngaa changé tey. ah yaa ma wax ma make up make up naa saa bopp. yow make up ci kanam la loolu dama doon waxantu rek. ah luy loolu. genre wax la pour nga changé waaye. ah man daal yaa ni ma make upal sa bopp gis nga ma nii ni ma make up bi eh. fi ma génn nooy na. wuy ma sëggal sëggal tuuti. ma sëgg waaw sëggal. sëgg naa. li nga sol xatu. déedéet ah yow xanaa gisoo ma maa nga ca de yaa yow it yaa ne ma woon na dang na wow yaa ni ma na wow wowal naa ko wow na kay yaa ni ma yaa ni na wow te lii yëpp da nga def ngir ma ah waaw boo amee sa soko woni la mu bëgg da ko koy jox <laughs> du dëgg dëgg la moom damaa damaa ñëw jaar ca néeg ba fekkuma la fa may feleere topp sa xetu parfum ba ci kaw ma xam ne yaa ngi fii waaye sama soko wani waay. Eh, soko wani luy soko. soko wani. soko soko. soko maanaam kaay ma wax la nag gis nga jigéen. waaw dafa bëgg ay baat neex. su su su su kiiwee rek daf may énervé. ah boobu neexul. da nga koy da nga koy neexal. ma neexal soko soko. soko wani. soko wani. soko wani. waxal beneen waaw damaa ñëwoon indi sama caution bi. caution ah yaa ni woon naa lay jox dara. ndax ngay mën di waaw. léeg-léeg nga may tegal ay ndogu yu neex. te comme que xam nga rek man moom bëgg naa la bëgg koo xam ni moom duma la rate dégg nga. nga sa ah, waaw waaw man day wax dëgg yàlla joxe moom du saa du du du lu ma mënul. bu la baax bi de moom bëgg nga ko trop. daa baax asamaan daa bëla waaw ma ne danga ko bëgg trop. Hmm. gisoo ne lii dafa cëkk. cëkk gisoo ne 2000 bi may jox chaque jour day nga ci man. day nga ci man. damay am problème waaw. Ah. Euh, lii nii pour paas rek dem marché nii waat rek dafay jeex instant essence bi dafa yokk te taximaan yi foofu ñu tafuñu. Ah. weer koor bi dañoo yokk lépp. waaw waaw waaw ma ci demee ñëw rek. waaw maanaam mënu ma cee togg dara. da ngay doon soog dugg si nag xaw ma nu ma la koy waxee te xam naa ne dëkk bi métti na métti goo xam ne des nga xëy suba sax pour nga jaay junni problème la mais da ngay jéem a yokk sa loxo mën laa toggal lu baax léegi lépp a yokk lépp a yokk xaaral ma arrondir ko dëgg la métti na dëkk bi métti na waaye bàyyil ma teg ci beneen baxa jox naa la baxa teg ci beneen baxa xanaa baax na tane na sax boog laay wax muy ñaari baxa ñaari baxa comme que ñaar lañu ñu maag ñu def ñaari baxa. kontaan nga. waaw soo wani waay. dëgg naa wani. kontaan. sa collier yi mënut a dañ. yooyu yan la yi nga takk nii. yii ah ni ma ko aaralee nii ak ni ma ko ci transféré nii baaxul. yow gis nga ne baax na. ah waaw sentir naa ko de yow sentiroo gis naa ne baax na. baax na ba pare seetlu naa ne sa tuñ yi meloon ni karo kase waaw maase na maa ngi koy diw yaa ni yow kat yaa ni man même karité sax bu ma amee naa ko ci diw ndax mu nooy yaa ngi koy diw waaw la koor gi kay laa ci doon sóoraale rek moo tax guddi ba guddi mm. laa koy maasale ah da nekk kii na maase na maase na maase na ah, yaa ngi sexy nii ah baa kenn xool la ah loolu nag mënuma koo bañ waaye man daal xooluma kenn ah. damay fàtte rek après koor gi ah. noteel lépp loo ci bëggoon lu ne ko waxal waay. lépp loo bëggoon ñu toggante ko. dee ko dikkal mu sëf. ñaar dee ko dikkal mu sëf. ñaar dee ko dikkal. à suivre koor gi la koor gi. maa la bugg a koor gi la. alhamdulilah donc muy jafe-jafe ne ciment Dangote la waxoon ne ngir ma fi ci dëkk boobu moo gën ci yow te jaaga jaaga sama kanam yi ne faru rab.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 Sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps